bëgg ñu xam lii xew tax na dafa woote ci misaal benn réunion bu mag yàlla mun naa jékki-jékki rek ne xawet ne cëpp nit waaye mu mel ni bu ñu koy jàng ci suratu albaqara yàlla daa mel ni ku woote réunion bu mag wa isqul naa lil malaayika lil malaayika inni jaa'il fil ardi xalifa loolu laa bëgg a wax wa isqaala rabbuka lil malaayika inni jaa'ilun fil ardi xalifa bi ndaje moomu amee la ca yàlla wax mooy dama bëgg a wàcce ci kaw suuf benn xalifa waaye yéemu ca xanaa déglu ña fekke woon jataay ba ci misaal ñu jox ko seen xalaat damay bëgg a def nangam joxe xalaat luy seen xalaat ñu ne ko suuf comme jag na suuf comme jag na baax na ki nga fay bëgg a yóbbu su milut nu nun yàq la fay nekk ndax nun sàbbaal lan xam ak bàkk la boo fa yóbboo kuy tuur dara mbaa muy yàq mu yàqal la sunu borom ne ñeg fekki woon jataay ba inni alamu ma la taalamoon xam naa lu ngeen xamut wala li ma xam-xamu leen ko loolu bi mu tàmbalee sunu borom indi ku ñu wax aadama waaye aadama yàlla xam na ne bu nekkee ci kaw adduna moom dong en tant góor am nañu fi bare bare bari yoo xam ne du jàpp am na yoo xam ne ci àdduna ñaar ñooy ànd di ca def mu jàpp waaye bu kenn karimee bàyyi moroom ja du jàpp ñaar ñooñu mooy ki yàlla njëkk wax muy aadam mu bind nag jigéen ñu tudde ko xawaa ñu war a ànd ñoom ñaar nag liggéey liggéey bi nga xam ne li kii man moom la man li kii tële moom la kii man loolu nag moo ju jigéen ñëw nag bi ñu ñëwee ñoom ñaari bi yàlla yebal aadama pour mu jàngi def na ko bul fi bàyyi soxna si bi mu yebal aadama naan ko demal jàngi daf na ko bul ko fi bàyyi xam naa suñ aada noonu noo dem ba mu yàgg rek ñu ne jigéen mën ngaa toog bu dee alxuraan boo àggee tabaja daa doy na bu dee jàng boo mënee liir euh, Amadou va à lekkool doy na <laughs> waaw bu dee am am boo fasee lu mën a jënd keccax doy na bu kër bo amé fu sa bàyyi dëkk nga jóge fa dëkk sa kër jëkër doyna ila akhir ila akhir lool nak li ci ëpp suñu aada la way dal yalla bind jigen ne ko goor ki uskun anta wa zawjuka aljanna dugg bir aljanna ngeen jang ndax ku nar ñew aduna da nga wara jang àdduna ku fi ñëw te jàngoo ñi jàng yaa leen di yor lépp ku fi ñëw te xamoo ñi xam yaa leen di yor seen lépp ñoom ñaar ñu war a dem kon jàngi lu ñuy jàng lu ñuy nekk àdduna ku góor da koy fekke ku jigéen fekke ko bu ñëwee ñoom ñaar ñi buñ pratiquer àdduna dox bu kenn ki teggee loxoom àdduna taxaw luñ doon jàng liñ doon jàng moo tax bi yàlla ne na woote concours ku gañe ñëw àdduna keroog aadama ak xawaa ñoo gañe malaaka yi maanaam concours ba ñoom ñaar ñoo jàll ndax def ne am bi uunii bi asmay hawla ginnaaw da ngeen di xëccoo ñii nee nañ atajalu fiiha te man nee naa inni jaayilun léegi kon affaire bi mooy ñaari groupe soxla nañ poste xilaafa fil ard bi léegi nag yàlla comme ku ku maandu la mu ne léegi dafa am lu may laajte ku ci tontu nga jël ku tontuwut na nga xam ne yaa xañ sa bopp ñu naajte mu ne malaaka ci yéen laaj njëkkee am bi uuni bi asmaai haula yàlla na sama question bu njëkk mooy dama leen di laaj ku xiif nu muy def ba lekk première question malaaka yi na ko laa ilma lana ñun xamuñu ku nu muy def ba lekk yàlla dóor leen zéro laa ilma lana ñun xamuñu ku xiif nu muy def ba lekk parce que yàlla bindul malaaka muy lekk ka naan kon mën naa ñàkk xam ku xiif nuy de ba lekk yàlla bind leen zéro ne am naa beneen laaj bala ma ñëw ci aadam ñu ne ko waaw mu ne leen ku bëgg fu tëdd nu muy def ba am ko ñu ne ko lu ñu ci xam laa ilma lana xamuñu ko mu dóor leen zéro mu ñaari zéro peut-être zéro sur vingt peut-être waaw boobu moom moom ah boo xam leen ko déedéet troisième question ku mar nu muy def ba naan qaalu laa ilma lana illa ma allamtana ñun xamuñu ku mar nuy def ba quatrième question et dernière ku rafle nu muy def ba sol ñu ne ko laa ilma lana donc quatre questions yi yëpp amuñ ci point waaye ginnaaw yàlla santoon na aadama mu jàng te buy jàng na ànd ak jabaram sunu borom daal di koy tàmbali ne ko nag acca aadama gaa ñi ko dégg seen réponse léegi nag question yi teew la jëm aadama ku xiif nu muy def lekk mu ne xanaa mu bay lu ca ñore buy dugg cin mu dugal ko cin bu duggul cin mu xolli te lekk yàlla noté ko ne ko ci point bii am nga ci vingt bu doon noté lépp na vingt mu ne ko am nga ci cinq salaam ku bëgg foo tëdd nooy def mu ne da dem ca àll ba dagg ay bant xanc xanc wutum ñax rab bu dëkk mu ne ko nag naa la amaat nga beneen cinq kuraaf la nu muy def ba mu ne xanaa mu dem ci xar yi wut ca leen ma ëcc ko këcc ko defar ko ràbb am ca lu mu woddoog lu mu sàngoo amaat beneen ko cinq point kon am na quinze sur vingt des na benn question su rob ne ko ku bëgg loo naan nooy def mu ne ko seet suuf si fu xaw a dëgër nga gas ba mu xóor nga jot butum ndox wutu buum yeew ci dara di ca jokk di génne di naan mbokk yi concours bi jeex walla examen bi jeex malaaka yi am zéro kii am vingt sur vingt nañ teg suñu baaraam foofu ñu dellu siwaat ci xissa bi mooy bi bi aadama amee vingt sur ci biir mbooloo mi ñi añaanul ñëpp dañ koo tàccu yàlla ne tàccu leen ko ñëpp tàccu loola li ma koy misaal mooy sujootal leen ko sa à dire nangu leen lim def ña ñay sujjooti nii ne ko nii ñay sujjooti nii ne ko nii ñay sujjooti nii ne ko nii ñay mhm. sujjooti félicitation ne ko félicitation ñay sujjooti di courage ne ko di courage mhm. am waa ju añaan ju taxaw fële toojut sujjootut ne këj parce que moom ci groupe malaaka yi am zéro ci la bokk waaw ñu nekk mbooloo ñu nekk ñaar daal di génn ci examen war a ñëw ci kaw suuf mbokk yi <laughs> yàlla ñu comme jàng ngeen ba noppi gañe ngeen dem leen ngeen defee stage stage bi mooy dem leen aljanna ngeen jàng fa nag li ngeen jàng nuñ koy jàngalee li ngeen di jàng nuñ koy pratiquer ci koñ bi ba koñ bi dund na solo gis nga mbooloo moo mën a gis soxna si noo tuddati nga ne Valérie Valérie gis nga koñ boo mën a dem ñaari baata koy doxal ñaari baata koy yàq ci ëtt bi lay jóge dañ leen dugal aljaana ne leen li fi nekk lépp lu ngeen soxla lekk leen li fi nekk lépp lu ngeen soxla naan leen wala taqaraba hasi sajara garab gi nag bàyyi leen ma ko fi gis nga loolu bu doon dox waaleykum salaam aljanna rekk mooy am bu xewee ñu commencé dund lu métti mooy interdit lii dañ koy tere lii dañ terewuñ nga dañ ko maye adduna si yëpp ci niru lay dox nag parce que mbooloo moo gis mbooloo mi bu fekkee dañoo nose ne lii ñuy def lii la ñuy bàyyi ñu ne ayca di def la ñuy digle di bàyyi la ñuy tere mbooloo moomu fu ñu jaar daañu am résultat moo tax mu ne loolu nag ngeen war a dem jàngi ñu dugg ci àjjana ji pour jàng loolu jëfe ndigal bàyyi tere defe naa loolu docteur yi sax léegi mm-hmm. docteur yi léegi daanaka loolu ñuy faje dama def analyse sàngam defal nangam nangam defal nangam yaa nga ñëw ñun la bàyyi ceeb te lekk nangam mm-hmm. waaye ndaw ko daal bu ko waxee mu ne ko bàyyi lekk ne ko bàyyi lekk ceeb mu ne ko wax nga xay mu ne ko ah xanaa kon ñu may la juróom benn kudd mu ne ko kudd cungaar kooku kebe la sant kebe ndaw ndaw la sant waaye jëfe ndigal ak bàyyi tere liy dox ci adduna moo koy doxal gisula suñu appareil yi appareil yi ndigal rek lañu jëfe bàyyi tere off ak on supprimer jeex na suñu appareil yi boobu def bi tax kar bu jàng alxuraan ma mu ne wala taqul lahuma off ma ne law yéenu rey kon bu leen off seen seen seen yaay yëpp ngi lépp loo xalaat ci fruit mi ci taabal ci lu ñuy naan ci ndox mi ci taabal ci gan gi agsi muy kooko noona agsi daal di nuyoo ñu ne ko jëlal place mu ne baax na di xool taabal yi mu neex leen mu laaj leen benn doom benn fruit bu nekkul ci taabal ji ñu ne ko non boobu dañ ne koo tere. dafa xool taabal ji gisul benn fruit bu doon tey ji da nga naan gisul dimb exemple maanaam lan tudd na benn doom gisu ko mu ne waaw yéen nu ngeen def ñu da ko ah sant bu baax a baax lu ngeen fi nekke li nga gis rek dégg naa da ngeen di jàng mu ne waaw dañuy jàng ay iti jàngeen waaw mbaa am ngeen bourse marié moom lu ci yoonam iñaan <laughs> Adama ne waaw naa jaajëf mbaa bourse bi man ngeen cee dund mhm. ñu ne ko ba desal si nga ko di ah waaw après njàng meeg stage bi lu ci tege ñu ne jël fonction xanaa liggéey ah waaw fu ngeen di liggéey ji ñu ne àdduna macha allah lu am na solo kat moom kat mooy wax neleen waaw bu weer deexee lu ngeen di am ñu ne ko ñun dañuy liggéey ba génn àdduna ñu door ñoo fay lañ ñuy jox ci àdduna ak ak ak jàppale la ak ñoom seen yooyu dégg nga de mhm. mu teg foofu point boobu ñu ne waaw ana doom sàngam fii ci table bi ñu ko boobu dañu ko tere mu ne laaj ngeen ki leen ko tere lu tax mu tere leen ko gis nga ci logique sama gars yi mooy ah pourtant kii xaw wax dëgg ah parce que war nañu waa laaj lu tax ñu tere ñu ko mais bu dee iman day wax day loo ci laaj tere nañ la koy bàyyi rek waaye ci logique da lay wax ne yow lu tax mu la koy tere te doon na ko tax nga tere ma ko ndax léeg-léeg logique dugg foofu indi fii problème lu am solo la iman ak logique foofu ñu ko am nun laaj ñu ko daf na koo tere bàyyi nan ko mu ne ko nag gis nga yow mag mu toll ni yow Adama ak xam-xam bi nga am keroog concours ba waaw ak ni nga ko jàlle yaakaar naa sa xel weesu na ñu lay tere dara te doo xam lu tax eh. boo gëmëlu sa maam Cheikh vraiment mu ne ko laaj ma ko man fii yàgg naa fi jardin bii maa koy toppatoo garab yëpp laa xam laaj ma lu tax mu ne ko lu tax mu ne ko waaw sa boroom garab gii ci lay añ ci lay reer ci lay ndékki ngeen ko bokkee day gaaw a jeex moo tax mu tere la ko aadama ne nga ne lan mun na ko nag des na boobu mooy mooy mooy seeli demee dinaa jël si incha allah nu ko dina suñu waxtaan gis nga sëñ Ba balaa jël si àdduna tukki moo tax jàngalekat yi ñu di leen aaye nga ne sa sa sa sa sa étudiant wala sa élève wala sa taalibe bu subaa mu duma la loolu kenn ko wax léegi del si na ca ëllëg sa wax leen lim leen waxoon démb ne leen doom bi leen tere nag am na leneen lu ci am lu ma leen bëgg a wax est-ce que wax na leen tur bi ñu ko non ah si sajara la wax mu ne leen garab gaa ngi tudd sajaratul xuld sajaratul xuld nag mooy garab goo xam ne ku ci lekk boo booy dund doo dee boo faloo doo follee ko am naa ko amoon muy ko africain da nga bëri xaalis. mulki laa yeblaa ku ko amoon indi ko Afrique gii yaay bëri xaalis <laughs> waaw ah na nag li ñu def mooy gannaaw gëm nañ logique logique bi day weddi lañ gëm ci seen borom ndax ñaari mënta Mbàkke ñun ñëpp am nañ lu ñu gëm lool ku ci doon tukki jógee màkk di ñibbisi logique hmm? lay indi waaye imaan moo lay àggale sa jàkk sa sa sa lal bi mooy lan jóge sa sa hôtel jël kaar mu yóbbu la aéroport nga duggaat fa kaar mu yóbbu la ci avion ba nga yéeg avion mu indi Sénégal xam de nga dugg ca nga nga wàcc beneen kaar jëlee la fa indi la ci tànt yi mhm. nooy def taxi jëlee la fa wala sa oto yóbbu la waaye sa buntu kër lay yem tukki bi yëpp yaa ngi yëg ko wàcc boo sa buntu kër nag boo fa doo jël taxi doo jël avion doo jël train mhm. doo jël bus def dox sa tànk ci buntu kër ga ba calal ba mhm. loolooy imaan ñoom ñaar nag keroog lañu yàlla wax ne lan leen seytaane wax né garab bi lii tax ñu lan ko ñu lan koy téré ñu daal di cay lekk nag ñoom ñaar ñu daan nettali bu ñëk nak dañ naan awa lekk ca adama door caa lekk léegi sax ñu la awal bam ca lekkee mo tax muy gis baax mu ne ëw léegi ñu wax la ko waaye alxuraan daf né fa akala ñoo ca bokku lek Mm-hmm. am déet mm-hmm. fa akalaa waxul fa akalat waxul fa akala mm-hmm. verbe boobu ci arab mooy ñoom ñaar ñoo ca bokk lekk fa akalaa ñu bokk ca lekk waaye nag <laughs> keroog ba leen yàlla dugal daa am lu ma waxoon buñ génnee fii mooy seen tomb bii falaa yuxrijannakuma minal janna déggal falaa yuxrijannakuma minal janna daal di banque benn baaraam rek des benn ne ko fa tashqa mooy bokk bu ngeen fi bokkee jóge mun naa mun ne ko coono bu rëy topp la aadama loxlu waxu nag coono bu rëy topp leen ndax na ko coono bu dee topp la loolu nag ci sunum pénc léeg-léeg sëñ Mbàkke ñu bëgg a bokk fatasxaa gi def ko fatasxayaa tey boo nobee yenn jigéen ci koñ bi da laaj ndax mi ngi liggéey elle travaille mu ne waaw na noté est-ce que am na voiture ñu ne waaw nga noté est-ce que mi ngi ak villa ñu ne waaw nga noté léegi yow loo bëgg a jariñ kii laaj naa leen ko rek daanaka dara dara rek léegi fatashqaa ji lañ bëgg a yóbbu ci fatashqayaa léegi bu ko jigéen nangoo it daal di ci liif ga rek moo tax <laughs> su ngay xadija bi muy ci jamonoom lu jigéen man man man tey liggéey doo ko dab ci wàllu azakaam jigéen bi mënoon a la waaye mbokk yi dafa liggéey ba noppi nag delloo liggéey ba ci diine jii tey jaar la ko ci loxol Muhammad ndax am amul jigéen lu baax la bu la penc mi bàyyeeg li nga am waaye léegi léeg mu métti rawatina nag une intellectuelle buy xëy am dara lu ñuy teg ca loxo bu weer wi dee ba benn bés nga jënd jën yu baax bu subaa sa jëkkër rocc loxoom na ma baal nag <laughs> lu am solo la di jigéen togg lu naqari yómb ko li feeg mi ngi am lu mu denc kër yëpp kër géwél yee ci gën a neex hmm? waaw kër géwél waaj hmm. ah ko am ay femme géwél Mbàkke hmm? bu ko ñëpp xamoon ñëppay takki géwél li tax mooy géwal mën naa jóge fii dem ne Mbàkke si la si la ngaar yi si la boobu ngaar yi soq mi ci bàll ak barke mi ci naan nga jox ko mil gis na mil woowu du ko banque de doo gis mukk géwal buy woyaan di def ca banque ba musuma ah man di musuma koo gis ci cin la rek moo tax seen nañ ma baal nag yéen ndaw ko yi seen kër doomu léeg ngay dank ceeb ceeb naan ciib ciib waaye suñ kër yi ñun dañuy mëkk ceeb léeg waaye lekk duñ ceeb ah xam ngeen li ma xam kopp koppal ci tuuti diwlin def ci nangam ki nangam bu see boo yore sa loxo boo dankee boo bàyyee ceeb ba tasaaroo ah ngeen baal waaye loolu waaw boo dankee nii booy bàyyi rek muy tasaaroo heureusement léegi dànk xew yi na kudd leen jël heureusement Mbàkke suñu yaay xaji jël liggéey liggéey bu rëy lu nit di am mu am ko góor ña ca màkk ëpple wuñ ko góor ña ca màkk ëpple wuñ ko ci am waaye nag li ngeen wax nii ne dëkk ci dëkk bi dundal dëkk bi. bokk ci dëkk bi. bokk ci dëkk dundal dëkk bi. su ñaay Xadija dafa am lu bari ba xale yu góor yi di wut si liggéey ci këram mu leen di chargeel di leen defal formation di leen yebal ñuy jaayi diggante hmm. mu yokk keroog ba fi yónni yàlla Muhammad indee dossier ba mu indee te xamagu ko hmm. dafa ne ko dama lay booleek benn xale ci xale yi moom yàgg na liggéey bi xam na ko may saral la tudd mu defal la formation ndeysaan yonent bi xam ni xam ne ko waaw waaw moo tax góor gu xeeb métier hmm. wala nga xeeb liggéey hmm. doo dem liggéey kenn du ko xeeb am nañ suñu benn xarit day taxaw fu la jëtali maam oto yi jàll leen yéen ñëw leen def na ko fa daanaka ñaari at jàpp ñett a doon bon dama ko doon caaj quoi benn commissaire yow lay wax ni demal toog fële keneen ñëw kooku sax kee koy tane kenn mos koo gis man mosuma gis commissaire di dàq ba dàq treize yoo xam ne ci loolu rek dama doon kii quoi ma jaar ci bon doon ko caaj ah, ba xam kii la quoi mu jóge gàlle mooy loolu dama toog fële. mooy loolu. keneen ñëw keneen ñëw ba muy treize. mu loolu dalul yonent bi Muhammad. dafa ñëw Xadija ne ko noo tudd mu ne ko Muhammad. kuy sa waajur diw. sa waajuru jigéen diw. maanaam ñu faatu nañ. baax na confirmé naa man tam. moom ba agsi ci. loolu doyee liggéey bi. mu ne ko damaa bañ ku may yàpp. damaa nekk ci kër ak njaboot ne fa bu nit ñu xëyee cotiser ma xëy ñu yóbbaale ma loolu laa bëgg mu jeex kenn dutu mu yóbbaale mu ne ko am nga léegi allahu akbar soxna sa ne ko am nga liggéey daan may sara xoolal ma ko léegi comme suba la ngeen dem jawbe dem leen marché gën a tàppe ngeen jël dambay keccax ya jël nangam ja jël nangam ja ci misaal yonent bi yóbbu dambay keccax ya dàmb yëpp jar lam yobul yóbbuwoon jar professeur mo nga ba xay ba delo ci mu jinde ko yenen ak ci màkk mu jar mu boole ba ak bële yëpp tak ne ko ko becc bi mu ne ko ba ci xale yi dafa lii la mu ne ko lii lañ jaay mu ne may sara noo gisee sa sa sa étudiant bi mu ne ko kii du étudiant de kii du étudiant de mu ne ko nax lan mu ne ko bañ fi jógee ba fii nu toog sa xaalis bii jublu ci butéelu ndox ndékki wu ci nee moomu ko mu ne ko nga ne mu ne ko déet noppeeguma ba ñu fi jógee ba niñ dël si aw weñ dalul ci yaramam wi nabiyun bi xayril wax yi laa yatasarrafu aw góor ku bëgg yonent bi defal nii def nan ko afoon anil jaami waxaala tawaqqafu xadija question yi mu ko posé yonent bi tontu ko may sara nag moo ci des léegi commencé nag di ko wax li mu gis ci tukki bi bi mu noppee su nga xam am xam ne am na jëkkër kon kii moo ko mag nag waaye kii la doon wër góor goo xam ne ah, bàyyee ko lam am rek denc Xadija ba noppi bàyyee ko limaam waaye Xadija xëy benn bis rek ne ko kaay nu waxtaan lu ne am na ko naaw mu ne ko dëkk bii nu nekk nee nañ maa ci ëppale mu ne waaye ku fi ngénte xeeb nu hmm. ndax Mbàkke boobu imaam Jóob doon ngénte fii tey ñun góor ñi bu ñu ñëwee bu ñu ñibbee boo ñëwee doo am cinquante mille jëkka daan lekk laax am tàngal bége naan ndoxum waalu ah naan café Touba laaj peeru mariage jóg bokk ko deux cent ah ñu noonu la def bu dee jigéen ñi nag ku ci aye bu sa morom di ñëw day rusi ñëw ak loxoy neen moo tax ñoom ñaare bu ñuy ngénte bu ngoon jotee dañuy nëbbu seen jëkkër liñ jot a encaissé waaw fu noonu nag dañu encaissé jënd dum xaar noonu yàlla yërëm motax bu jigen joge nak taxaway dama bëgg défar defar di kopp-koppal lim am di defar ku yëpp won jappalé ko ndax mu défar barki démb sunu ben oustaz ca ca ca kaw daf ñoo jangal defar bu am solo ustaas ibrahim daf nenu Sénégal 16 millions lañ wala 15 millions d'habitants ñu ne quoi mën nañ jàpp ne 13 millions yi ay jullit lañ 13 millions yi ay jullit lañ ñu ne quoi mu ne 13 millions bu àjjuma bu ko nekk joxe woon 100 francs 1 milliard la ñu am 300 millions. allahu akbar nee na 13 millions ci Sénégal bu fekkoon àjjuma jot kenn ku ne jàkka ja nga jiite nga yóbbaale 100 fu ngeen di jullee. nga yóbbaale cent franc ñun treize millions yi égal milliard trois cent millions waaye loolu boo ko defee semaine bi semaine bi bu dee quatre quatre quatre semaines moo am ci ci mois bi am nga cinq milliards deux cent millions bu dee at mi douze mois la nga def ko fois douze looy am 62 milliards 400 millions. jeudi lay lundi lay am ak jeudi. waaye yéen ku la joxoon lii. 18 <laughs> ku la joxoon lii man defe kon su ma 52 milliards mat sax <laughs> li may ñaan suñu borom. donc xoolal rek li ngay xeet yaa ngi fi doon tudd léegi jëm kaw lu tax mu ne seen leket gii. nose donc waral na kon nag bu leen jóg ci nose googu gis nga ñaar fukk ñaar fukk ñaar fukk nekk te moo jur 62 milliards yi ci jullit yi te danaa yaakaar ne jul bu ne Cheikh loo mu ñàkk ñàkk wërsëg juróom-ñaari fan war na fi am aw sant xanaa dëgg dëgg xoslu xoslu xoslu aw sant fara moom war na fi mën am donc kon mooy mbooloo mi ñu nose leen fexe ba jiital kenn kee topp ca kii ci xaalis kii di génn kee di def nangam loolu rek mooy tax bu ngeen toogee tuuti bu ngeen ubbee lekkat gi fekk fi loo soxla te loolu jarul dem fenn suñu abdaan daf daan wax ca jamonoom yéen ñi nga xam ne man maay seen xalifa jilif leen bés bu ma demee ci banque laaj fa ñu ne ma diw am na fi compte loolu dal yàqte si bopp lu ci waay soxla boo ñëwee mu jox la ko na dëgg loolu rek moo koy waral nag jigéen ñi bi suñ yaay Xadija xàllee lii dafa wane aw yoon mooy léggéey denc yaxanal waaye déedéet dañ lay xas wax naa ko sànq rek fële ci dëkk bu fi xaw ma fi ñàkk rek di ngi gis ca daay mexe fi ne buñ doon bu bu ngeen doon laaj nii ci lekket bi am ku ñëw dugal 500 kenn ko yëkkati ba ba ñëpp seen 500 bi mu ne ko diw def nga ni nga tollool xanaa xas na la ku ne ko 500 la tollool léegi kooku su ko loolu mere su ko loolu méttee bu ngeen dajee te du te seytaane foofu lay liggéey kon nag euh, ànd pour defar lii tax mu man rek mooy ku ci nekk yëg nga sama juróom ca yëf moo defar lépp sama fukk defar lépp parce que bi yàlla ne joxe leen dafa noo jàngal joxe mu ne masalu la siin yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali habba xam haba haba mooy benn fepp yàlla mu ne kiy joxe bu mu xeebal aw fepp ndax wenn fepp mboq mooy ji mooy jur euh, gattaxu mboq góor gi muus mooy kii ñëw weer bi dee mu konte ne soxna si lu ñuy dépensé mu ne 3000 mu ne ko quatre-vingt-dix mille léegi nii maa la ci tegal diimi mille yii gis nga soo bàyyee yàlla xam na ne da nga añ da nga reer da nga ba weer wi deex te du ngeen lebi fenn su fekkee lu ñu la taaj nga lekk bu dee góor bi wax nag jën wi jën wi dafa kiiwut jënd dafa ndaw xanaa waaw xanaa mbaxal rek la reere mooy ci góor yi ah. waaye su fekkee lu la tax nga lekk benn ñaareel ba loolu nga ko jox moom dana ci am fu ko mën a dugal ba bu weer di dee bu ci amul dara loola dana mën a sàmm xam nga tey ku bëgg ak lekk ci kër gi bëgg siyoog paan ci kër gi ñaari góor ñi duñ ko jënd xanaa man xanaa man man damaa def léeg-léeg ba dem ci marché bi jënd fukki paan andi jigéen ci dafay jigéen ñooy fattanal ba maa ngi mujj di génnewaat parce que fukki paan ci kër moom leen la xam doy na lu dëgg donc ginnaaw moom mooy gérer di bëgg lu ruus pour mu gérer ca leneen mbàkke bok baye ak li am rek mu géré lu bari bo tibé lu bax jox koy muy dépense bi yépp ci ci ci bi dana am lu dépense bi man régler ak lénen su ko defee bu démé marché bu lew fukka mo xam bu déssé ñaar fukka mo xam lolu am solo la ci am amu jigen, di bëgg a koñam demal bopam lu am solo la te ngeen bàyyi it nun góor ñi ramasser weccet bi lépp di xëy fekk ci taabal ji trois cent nga ne cofee def ci sa poos bu bàjjënam ñëwee bu ko xeebee yebal ndax bàjjënam day ñëw ba noppi ne ko maa ngi ñibbi mu xool trois cent yi woon ci taabal ji ndekkee muru ko ñu yóbbaale na ko bu demee ci koñ bi jënd ci benn journal euh, Sud Quotidien deuxième ñaar fukk sa tante ñëw nga tëcc fii gisoo trois cent ya nga tëcc fii gisoo ko te mi ngi ñibbi ngay gunge rek ngay saag parce que comme yoroo paas gunge bi day sori doo mën a dëpp doo mën a dëpp da ngay rek ndeysaan ndeysaan ah wallaay bu doon 300 yi fi la ko sa jëkkër bàyyi boo ak tëli bi rek ne ko tante jël ci jël ci jël ci super mu ne waaye lii matu ko woon di nga ne ko ah kay tante weer weer sax ndey sax xoolal rafet lool waaye jëkkër yi am na ci bu ñu xëyee lépp lu ñuy ramassé loolu baax baaxul bu tantam ñu def wala ngeen baal ma yéen jàngalekat yi enseignant yi gis nga deux mille deux mille vingt day dugg rek. Mhm. nga jël nga jël. bolog na waaw wala wala agenda jàngalekat yi moo tax duñ bëri xaalis saa boo xëyee di calculer cinq cent bi cinq mille moo ko joxoon mu jëndi gaz mu ne cinq mille mooy gaz égal luñ lay delloo mille cinq cent mille mu bind mille cinq da koy defal lu bëri xaalis ginnaaw gaatal soxla 1500 lañ la ci delloo jox ko 5000 bi te na jël loolu mu desal mu am fu dugg te fi muy dugg kat ci lay dellu si waxoon naa sànq may tàmbali kër géwél ak ni muy neex waa ji daa am jabar may kenn ko ñaari junni may ka ci des ñaari junni quinze minutes après mu del si ne kenn ki abal mooy junni mu ne ko laay rey ma jox naa ko jàll mu ne cel naka ca des abal ma junni mu génn ñaari junni yi ko joxoon ne ko ah ma de mi ngi fi gis nga mu ne baax na daal di koy noté mbàkke dem ba weer dee mu amaat fa dara ñëw jox ko ne ñaari junni ka ko defoon ne taaj mbaxal mhm. Mhm. mbaxalu saalum yooyu la reere keroog neex na nag waaye kenn ki ko abaloon junni ba keroog mu mayaat ko ñaari junni joñal ko ay ganaar bi mu ayee ganaar boole ca ganaar buy nen te pareegul ñuy lekk rek mbàkke mu coog ko ci fi ginaar gi toogee rek teg ci gémmuñ jëkk ji la mu fa wax keroog mënuma ko nett bi waaye loolu li muy tekki mooy jigéen nit boo joxee li ëpp day dellu si loolu laa bëgg wax bu dellu si wut daaw ji na koy and di defar ab koñit nak wala defarub dekk yomb na ci bu ñepp andé té di bañ information étranger lu information étranger moy information boo xam ki koy wax bokkul ci mbooloo bi dafa bëgg yaq mbooloo bi mu yow xam nga jiw mané mako xam mu commencé la wax ci mom dara feree na ko léegi yemale ko léegi wala mu xaaral mu woo diw waaw waajo de ba mu ne suñu abdoulaye diwa yàq gàmm màggal gi daf na ko nga la lan mu ne ko diwa ko yàq ndax liñ fi doon bëgg indi moo ko wàññi suñu abdoulaye xam nga ko rek moom daal ne diw mu ne am na ko wuy si léegi bu fekkee yaa ngi sa kër mu ne jeex mu ne waajo waxal li nga waxoon muy xool mun na ko déet wax li nga mu mun a ji mun a mun na ko kon naa la ko waxal diw mu naa am na ko diw mii toog nii nee na màggal gi yaa ko yàq ndax li for nañu yaa ko wàññi mun na ko diw kañ lañ nga jëgi see mu ne cel mu ne ko sëñ mu naa am na ko kii màggalu daaw jëg lañ ko jëgi see mbolo tam nun la mu jigen ndax mbooloom gone mbooloom jigéen man moom may ma ci 2000 ma ko lii nak mu ma alekal ma ko def est ce bu ñuy réunion da nga may ma def contrat bi mu ne ma andi ma ko déet léegi kay léegi kay nga xul leer ndax bu ñuy réunion da nga may ma def contrat bi ne sama kër dama doon may jabar joxe nañ fa trente mil kii moom ma samay may deux mu ne ma indi ma jox ko ne koy jàppal ni nag naa wax naa nii ma la ko waxee dinaa ko wax bu bu réunion ba moo tax dañu ne ci réunion ba rek mu teggi ko ah, mu ne in fa faasiqun bi naba'in fatabayyanu mooy ki ñëw ci mbooloo mi moo xam ci mbooloo mi la bokk tàmbalee indi wax ju yàq mooy sa xaftaan yi mu ne su ma yëgoon nun la yëf yëpp yi mel nag moo tax li ngeen di def nii yàlla bu ngeen gaaw a xam li mu jëriñ boo léegi mun ko xamee rek tabarkal bu leen dajale xaay ba noppi nag dugal ko fu mu dul amee njariñ nan woote mbaxal nan woote mbaxal important <laughs> ëpp naa def day jeexal day jeexal kees waaw yal na yàlla sàmm nag ñi fi nekk te am ay borom kër yal yàlla barkeel seeni sëy ñi fi nekk te amuñu yal na yàlla may leen balaa 2020 di sori yàlla mën na ko yàlla na ko def dëkk bi nag dafa xaw a doy waar ci côté googu ndax góor ñi takkatuñu mhm. day saan jigéen ñi amatuñu te loolu warta yàgg jigéen bu ñu ko dencee day bëri tuyaaba ñu ko denc bëri tuyaaba waxoon naa ko ci Italie boo takkee jabar julli timis juróom-ñaar fukki timis nga yam

cette année-ci, euh, c'est spécifique par rapport à l'année dernière. Parce que cette année-ci, on a pu quand même euh, remettre à des, euh, à des femmes membres du mouvement des actes administratifs de terrain. Donc, c'est des cotisations mensuelles que les, que les femmes du mouvement Boxe de Kaby font pour pouvoir accéder à un toit. Comme le programme du, du président de la République, un une famille, en toit. Nous, euh, dans le mouvement MB3D, nous, faisons à notre façon euh, des cotisations pour accéder à ce toit-là. Il faut il faut l'achat de cartes de membres. Donc le mouvement le mouvement est, représenté dans la diaspora. La présidente de la diaspora, elle est là. Madame Kine Sissé, Fat Sissé, elle représente la diaspora. Donc le mouvement est représenté partout au Sénégal et dans la diaspora. Nous avons euh, des membres au Canada, aux États-Unis, en Italie, en Belgique, en France, à Marseille particulièrement. C'est elle, euh, Madame Kinesis, c'est la représentante de la diaspora. Mais ici au Sénégal, le mouvement est représenté partout dans les régions. Dans le quartier, nous nous, regroupons et nous, avons des partenaires à l'étranger qui nous viennent en aide à travers du matériel médical comme euh, l'ONG Médical Merci de Canada qui nous vient chaque année en aide que nous, que nous remettons aux hôpitaux et aux postes de santé particulièrement à l'hôpital Dalal de Guédiawaye, puisque le, mouvement, son siège se trouve à la cité Fadia. La cité Fadia fait partie de la commune de Golfe Sud, qui fait partie des cinq communes de Guédiawaye. Donc nous trouvons nécessaire, le 29 de chaque année, euh, marquer notre empreinte dans ce siège-là. Nous n'avons aucun soutien, ni de l'État. Vous voyez par vous-même, il n'y a aucune autorité qui est là. Nous, euh, ce qu'on fait, ce n'est pas pour tendre la main. Nous voulons que le Sénégal sache qu'il y a dans ce pays-là des femmes qui sont avides vraiment de développement, euh, qui font à leur manière, euh, qui, font à leur manière pour pouvoir accéder au développement et à travers des activités. Euh, quel appel L'appel que nous faisons à l'endroit de l'État du Sénégal, c'est de faire face ce monde-là. C'est-à-dire, il y a dans ce Sénégal-là euh, des, femmes ou bien d'autres groupements qui sont là, qui euh, travaillent euh, sans, aucun, sans sou de l'État et qui, qui foncent pour pouvoir accéder au développement. Nous ne pouvons pas tout attendre de l'État. C'est la raison pour laquelle on se, on se soude les, les, les, coudes pour pouvoir travailler et aller de l'avant. L'année prochaine, Puisque nous avons cette année-ci reçu des actes administratifs de terrain, l'année prochaine, nous, nous prenons un membre, un toit, clé en main. C'est ça que nous prenons. Voilà, Bob. di defal suñu fait pour mën jëm ci kanam parce que mënuñu tok rek di nan état lañuy xaar état aussi na xamné ne biir dëkk bi ñun duñu ay burkinabé duñu ay malien bis bu ne ma wax ko ay sénégalais lañu bon temps nekk si dëkk bi ku ci nek fi amna ci lu mu xolal si suñu gannaaw jigen ni li ñu def ni ñom ñoko defal seen bop xaaruñu ma Samba xaaruñu ma kon euh, dañuy lancer appel état mu gessu jigen ñu melni wa bok ci si dëkk bi dafa dëkk bi ku ñu bëgg gis mëna dugg si Facebook wala YouTube xam li ñuy def ñun li ñuy def dañu bëgg jigen ñëpp diko def buñu xaar kenn nañ jógal suñu bop pour Sénégal jëm ci kanam parce que jigen mom moy aduna jigen ay société voilà benn ndimbalu état musul ñëw ci ñun benn ndimbalu état musul ñëw ci ñun la preuve xoolal ci bâche bi xoolal bâche bi ni mu toll gisoo fi benn autorité sànniwuñu kenn xeer mais baax na ñu dëkk ci gox bi ñu xam li nga xamante ni loolu la waa gox ba di def xoolal à plus forte raison jigéen ñi nga xam ne tenue blanche mooy suñu tenue weex rek weex c'est la paix verte jaune rouge mooy Sénégal rek moo ñu ñor leneen ñoruñu Euh, comme mouvement bi ren dañ membre bu un dafa terrain ta amna ci ño xamanteni jot nañ terrain dañ membre bu nek bu am terrain dañ koy jox clé en main pour participer une famille un toit bi nga xamné état mi ngi koy def si ñun ñun ñoy def suñu deureum ak suñu ñaar ba def li ñu def kaddu gu mujj euh di rafetlu rek sen jota yeen TV parce que amna ñu bëri ñu ñu promettre dañu ñëw yeen ngeen ñëw ñu ngi ñu ngi sen gannaaw ñun tamit ñu ngi encourager di lancer appel. Sénégal que ne waa jigéenu mouvement bok si deuk bi defa deuk bi MB3D nga xamné c'est représenté même dans la diaspora qui Kiné Cissé mi ngi nii moo nekk ci diaspora bi ñii nga xamante ne ñoo nekk sama gannaaw c'est des membres du mouvement membres fondateurs du mouvement nek ci bureau national bi et international di len ñaan rek euh, ñom jigen ñi ñu gëna takku takkuwaat buñu xaar dara ci état bi nan takku rek ndimbal na ca fekk loxol borom nan takku rek te jëm ci kanam jërëjëf